bu noppee ñëwaat ci xasida kon sëñ Ablaye dama lay bàyyi ginnaaw bu ma la ndokkeele ci màggal gi nuy waajal ak yépp rek nga ñëwal nu ci xasida goo nu ubbee la ba noppi dooru nuyoog téléspectateurs yi kon ñu bàyyi la nga ubbil ñu ab rajas ba noppi ñu dooru dugg ci euh, waxtaan bi auzu billahi min ashaytaani wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin bismillahi rahmaani rahim wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi wajjahtu kulli lil waduudi samadi saa xidmatin lil Mustafa Muhammadi wajjahtu kulli lil waduudi samadi saa xidmatin lil Mustafa Muhammadi wajaxtu kulli lil wadoodi sammadi saa xidmatin lil mustapha muhammadi alhamdu wa sukuru mahallillahi ala nabi waladi abdillahi alhamdu wa sukuru mahallillahi ala nabi waladi abdillahi lillahi bi sikril hakimi an qalib ma nabi waladi abdil muttalib baddada li samla haduwin qasimi rabbi bi jaahil mustafa bni haasimi li jaada rabbi bin nawalin qad anaaf bil muntaxal muxtaari min abdil manaaf دعائي الصجاب بالمخفي ربي بالمختار من قسي أسأله نيل المنى بلا استلاب ولا خرور بالنبي ابن كلاب لي جد بخير واكفني مضره ربي بجاه المجتبى ابن مره لي جد بخير واكفني مضره رب بجاه المصطفى بن مره طيب فؤادي بروض صاحبي لي أبدا بالمنتخب نكحبي يا الله يا شالحرس والكرسي سل بتسليم على اللؤي يا رب سخل جملة المطالب bila xisaabin bi nabi bni xaalibi yaa rabbi suxli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi yaa rabbi suxli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi badiixu saqir liya kulla sahari wa kulla yawmin bi nabi bni fihri yaa xayra naasirin wa xayra maaliki unsur wa malik niya bibni maliki yaa xayra naasirin wa xayra maaliki unsur wa malik niya bibni maliki yaa xayra naasirin wa xayra maaliki unsur wa malikniya bibni maliki yaa xayrana sirin wa xayra maliki unsur wa malikniya bibni maliki yaa xayra nasirin wa xayra maliki unsur wa malikniya بابن مالك يا خير ناصر وخير مالك انصر وملكني بابن مالك قبيحتي وحصتي وندري كونك لي فليكن بنظري رل العدا وليحب جنانه بالمنتخى المختار من كنان رد للعدا وليحب جنان بالمصطفى المختار من كنان جد لي بما به أنير خيمة وخيرها بمن قضى خصيمة نجي جنابي من جوار مسرقة ومسرك بالمصطفى ابن مدركة بارك لي اللهم في قياسي بمن جعلت ضياء الياس انصر جنابي عند سير وحضر ولك قربني بجاه من مضر تفضلا علي ربي أن أصار فيك وفي خير الورى نور النسار هديتني يا خير هاد قد وعد أنجزت لي الوعد بأفضل معد وهبت لي فضلا إلى الجنان يرفع كلي بنبي العدنان بركة الصديق والفاروق جامعة المجموع والمفروق أكرم رب العرش ذا النورين ووالد سبتين في الدارين صبت صحابة النبي الأتقياء عليهم رضوان مجرى الأسقياء نفى اللحين من له عيسوم مع الهدى فجندهم محسوم رفع أهل بدر الإسلام وصحصه الفجار والسلام baa bima yasuuhu alqannaas wasura man law ana xannaas baana lana tawxiidu walfiqu maha tasawufin bi man ida na xammaha hadiyatullahi waduudi sammadi abqat hayaati bi nabi muhammadi hadiyatullahi waduudi sammadi